dañ ci wax suñu taxaway moy né guerre la nek té ci guerre bi sénégalais yi ak sénégalais yépp ay citoyens ak ay euh, citoyennes soldats la nek parents ONG associations, association presse même universitaires yi chercheurs yi ñi nga ñoo des ci nous ñepp pour faire lii nga xam ne moom lañu ñu jànkonteel ñu dugg ci li ñu taxawal comme dispositif muy ripost pour jéem ñun tamit béy ci suñu waar ba feebar bi gaaw a génn suñu suñu dëkk bi. ci loolu aussi def nañu benn gest dem ba suñu ministère de tutelle muy ministère de l'éducation nationale am waxtaan bu ñu waxtaan ak ñoom ci. comité d'alerte bobu ñu tek en place et de veille ñu xol ñun nuñ ci duggé ba am ñun tamit lo xamné dinañ ko ci indi ci walu xalaat ak ci walu jumtukaay yi nga xamné mom lañu wara jëfëndiko pour fièvre bi joggé fi amna na as tuut aussi bàyyi nañ ko fa parce que xam ñu né fièvre bi dina laaj ay jumtukaay yu bëree bare mo xam ci xaaliss la mo xam ci lenen la matuwaay yi nga xam ne fajkat yi moom la ñuy soxla moo tax ñun tamit euh, am na lu astuut boo xam ne def nañ ko ca mu nekkoon suñu contribution. suñu antenne régionale yi nga xam ne nag ñi ngi ci diwaan yëpp ci Sénégal maanaam quatorze régions yi fexe nañu ba ñoom ñëpp ñu ne leen nañu jokkoo ak gouverneurs yi ak préfet yi ak acteurs de l'éducation yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yooyu yëpp. pour le que nek ben Covid 19 bi ba paré téré yi nga wax wala mesures yi nga ne pour nit ñi mën ko pour mucc ci loolu aussi wax nañ ñu ko ndax bi fi Stop Covid 19 je reste chez moi et j'apprends à la maison.